wér wér tawxiid والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ginnaaw ba ma sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo ci mboolem turu daara yëpp man la soxna Ndeye Bousso Diattara Victoria concours international en ah, chef de l'État ah, di sant suñu président monsieur Bachir Diomaye Diakhar Faye ah, di sant premier ministre waaw ginnaaw loolu dama bëggoon a laaj premier ministre dama doonoon sa daara ndax xam na ni nga mel ci daara yëpp benn jour ma saa gis sa vidéo ma ne yow moom doo ma soxla ginnaaw daara ma bëggoon a xam ne moo doon sama yëg ci yow. jërëjëf euh, laaj bu am solo ndax Sénégal dafa di réew boo xam ne dafa am lu mu bindoo lu mu bindoo nag mooy réew gëm-gëm gëm-gëm yi ci gën a fës mooy diinay catholique ak diine jullit jullit ñi rek gën a bëri ci lim ci réew mi boo waxee jullit nag wax alquraanul karim ndax ñaar yooyu kenn mënu ko tàkk la boo boo génne ni ay nit nga am waaye amatoo ay jullit alquraan nag lu ñuy jàng la lu ñuy meublé ñuy jàngale di ko fas ci dënn di ko tari ci julli ak di ko tari pour bànneexu xol moo tax lépp lu jëm ci loola ndax sénégalais nu mu sàggan sàggan sàggan sàggan ci diine bëgg na doomam jàng alxuraan la preuve vacances yi bu koñ boo di ko fekk ci koñ euh, ci biir koñ bi ku improviser ku bi benn daara kenn ku ne jël doom yóbbu ko ko nga xam ne bu mënul doon xaafisul quran comme soxna jotara au moins mu am nu mu taree jullit comme loolu besoin la ci Sénégal yi ni faju nekkee besoin am ndox ak courant ak leneen la nekk du besoin noonu la spiritualité nekkee besoin ci Sénégal yi moo tax ñun suñu modèle ndax réew day am modèle suñu modèle donte dañ ne tëgg nañ ko ci laïcité laïcité boobu mooy bu ànd ak diine di saytu diine di gunge diine waaye du boo xam ne dafa dafa beddi diine dafa boddi diine dàq jii loolu nañ ko wuti ji feneen ba tax nag bu ngeen xoolee ci programme mu son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy continuité ci ñun suñu doctrine politique bu ñu commencé ci politique ba léegi ndax di ko fekk ci livre bi ma bindoon man muy solution di ko fekk suñu programme 2019 fekk ko ci programme président Bassirou Diomaye Faye ci 2000 vingt-quatre vingt-quatre bi mooy dañu jàpp ni la jëm ci diine faw rek ñu institutionnaliser ndax fi mu ne yëngu informel au nom de la laïcité moo tax ñu ne bu soobee yàlla ci budget deux mille vingt cinq bi bu ñuy voté loi de finance ni ñuy voté des crédits mais lii pour paj bi la lii pour càmm bi la lii pour mbay bi la lii pour lii bi noonu la ñuy voté un budget boo xam ne dina mën a jàppale diine ji moo xam jàppale nit ñi ci lieu de culte yi jumaa yeeg mosquée euh, église yeeg ñoom seen waaye na mën a jàppale njàngale bi mooy daara yi ak yeneen yu ni mel loolu dafa am solo moo tax ñu leen rassuré ni mbirum daara yitte bu rëy la ci ñun président Bassirou Diomaye école bu mu yóbbu doomam mu fay jàngee école boo xam ne la day jàngale alxuraan di jàngale tubaab kon kooku daara ñor na ko man mii di wax ak sama kër dama fàkku bi daara tey soo demee ñu koy xale yi di kon mu ngi dalal seen xel soxna si te du yem ci loolu waaye monsieur le ministre éducation bi nii lu ñuy def ba ñuy jóge ci njàngale diine ji lu ñuy def ba njàngale diine ji ñu articuler ko ak ay yeneen xeetu njàngale ak yeneen xeetu formation ba yombal leen après seen insertion ñoom it dans les milieux socioprofessionnels loolu it la ci ñun ma ciy profité nag di daaneel dama wax léegi suñu modèle tey am na loo xam ne dootuñu ko mën a nangu ci réew mu mel ni Sénégal gis nga boo demee ci tubaab yi loo wax ñu ne la ñun notre modèle notre style de vie ndax ñoom dañoo xam seen modèle assumé ko seen modèle lañ jàpp ni moom la ñuy saytu donte ñun ànduñoo ñoo seen modèle ñoom waaye seen dëkk ñoo ko moom ñu jàpp ni seen modèle lañuy saytu ba tey xale bu jigéen bu jël fulaar teg ci boppam ne day dem jàngi ci école de France ñu ne ko dóor ci école suñ ko defee seen réew naqaru nañ ko waaye am nañu sañ-sañ bi ci ñoo xam ne dañoo woote démocratie ak liberté ak tolérance loolu ci noonu rek lañu mën a tëru nangu fii Sénégal ak école bu mu mënti doon jàpp ni nit du dugg ci école bi du fi jàngee parce que am na fulaar bu mu teg ci suñu responsabilité la xale yépp la ñu yemale ki teg fulaar ak ki tegul fulaar gën parce que kii teg na fulaar wala tegul c'est un choix waaye ñoom ñëpp dañu war jox les mêmes chances tey boo xoolee récipiendaire concours général yi defe naa ñu teg flag moo ci foofu kon système tolérance bi ñu am ci réew mi kenn ku ne mën a def ses choix et ses options toléré ñi seen choix et te ñu mun a ànd ci jàmm loolu moo fi réew bu soobee yàlla kon ñu ngi rassuré ñëpp ñu ñun it dañoo am suñu modèle lu ñuy tubaab ay nit ñu ñuul lañu ay nitu gëm-gëm lañu société tolérance la ñu te loolu moo fi wéy bu soobee yàlla merci monsieur le Premier ministre, nous en arrivons maintenant à la dernière intervention euh, des lauréats. Elle a été Miss mathématiques en classe de quatrième. Elle été Miss sciences en classe de seconde. Aujourd'hui, grâce à cette constance elle est la meilleure élève des classes de première premier prix de mathématiques premier de physique chimie la parole à mademoiselle Gaynab Dièye Samb